position yu gën am solo yu nga xamante ne buñ ci demulee dinañ leen dégg. ñun dañoo bëgg ministre la santé li ñuy def depuis le 21 mai ba léegi ak yeneen secteurs yi ñu signé ko. le secteur général proposé na la date du mars. ñu xaar ñu signé loolu. mais nag question yi nga xam ne ni mooy système de rémunération mooy payooru nit ñi ak seen i comme ni ñu ko defee ñeneen ñi. ki représenté woon ministre des finances moom dafa ni nañu xaar ba le 15 avril pour ñu doon waxtaanee mbir mi ñu ne nag ñun mënuñu xaar 15 avril. déposé nañu suñu préavis de grève le 17 mars la fay lay lay jeex tey jii. suñu plan d'action bi concerné woon marche bi Kaolack lañu suba tey lañu dem Kaolack marche ñëw fii ci plan d'action bi la bokkoon. maintenant fii ak le télé bi dina jeex dinañu xayma bu ñu xaymaa nag dinañuy def deuxième plan d'action. jëwriñ ji yore wàllu fonction publique moom Mariama Sarr nag rafetlu bu baax ni waxtaan yi demee naka noonu waa SATSUS du syndicat des techniciens supérieurs de la santé mi xamle ne am nañ yaakaar bu baax a baax ndax jox nañ waxtaanee poñ yu bëri yu nga xamante ne ñoom ñoo leen soxaloon te ñu ngi am espoir bu baax ci nguur gi. Ibrahima Diame tëj gi ñu tëj ENDSS métti na lool syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé ñuy sàkku nag ñu ubbi ko nu mu gën a gaawee ndax. secteur u paj mi daal mu ngi koy yëg bu baax a baax Farba Ibrahima Ndiaye mooy secrétaire général ba. ah dafa tëj loolu moom wax dëgg yàlla ñun daf ñu naxari liñ ci di daal mooy dañoo dundun difficulté yu metti surtout que ren bi ñu demee commission pour affectation mutation maanaam ñi nga xam ne nekk nañ ci àll bi def fukki at ñii juróomi at juróom-benn at ñi nga xam ni yëpp ay spécialistes lañ nekk en périphérie kenn mënut a bouger ndax amuñu formé wuñu depuis trois ans quatre ans kenn génn je pense que bëri na ay problème ba nga xam ni ministère bi fi mu toll nii dafa mel ni question boobu mënagu ko régler mais am na loo xam munu ko nekk ñaata hôpitaux lañ créé yu bees ci ñooñu ñëpp loolu lañ soxla ñi doon génn ENDS ñoo koy war a doxal léegi ñu ngi wut ay stratégie aujourd'hui ñu ngi dem ci université yi formé ñu ngi joxe aussi pour ñu former leen yeneen agent mais je pense que lii régler problème bi définitivement mooy fexe nu ñuy def ba nga xam ni ENDS day continuer def liggéey parce que yemul woon rek Sénégal même su région fii lañ doon former seeni agent ñu wax ci ba tey ci wàllum wér yaram ak crise ba ñuy nemmeeku ci centre hospitalier régional bu uroso Ourossogui gannaaw toggaanu ñaxtu yi nga xamante ni daal ñoom la liggéeykat yi nekkee ñafa fa jiite SUTSAS jël nañu dogal ne lépp luy données sanitaires daal dañ koy téye secretaire généralu section locale SUTSAS boobule euh, ba fa sax dañoo faf tekki ndombol tànkam Ali Bandel Niang coow laa ngi wéy dina kur ci centre hospitalier régional bu Ourossogui diggante yenn ci way fajkat yi ak directeur bi mu ngay wéy di gën a ñagas directeur bi nga xamante ni syndicaliste yi bokk ci SUTSAS dañ koy tuumal ni dafa ñëw yokk ay primam bàyyi leen ci gannaaw ci jiite SUTSAS ci biir hôpital bu Ourossogui te ne SSI bi dañ ko mujj sax relevé booba léegi nag yëngu-yëngu yu bari na ay sitting ba sax marche ci biir dëkkub Matam responsable SUTSAS yi mujjee koon amal ab point de presse Amadou Lamine Sano mooy seen njiit. dañ fi am directeur boo xam ne muy wuyoo ci turu docteur Ousmane Gueye neuf mois la fi jot a def yaakaar ne moom yi nga xam ne mu ngi tolloon ci six cent cinquante mille mu jàpp ne dafa tuuti alors loolu la SUTSAS ne ni mu ko defee pour boppam na ko def pour personnel bi yëpp lépp lu mu jar ci xeex bi danañ ko def parce que moom ci boppam moom moo wax réunion boo xam ne moom moo ko convoqué woon ci bureau am le 3 jëloon malade yi ñu hospitalisé Covid xaalis boobu dafa bañoon mu rëcc hôpital moo tax mu jël benn facture vierge daal di ko justifié ñun loolu dañ koy ñaawlu bu fekkante ne xaalis boobu bañ na mu rëcc hôpital mooy dañ koy laaj xaalis boobu bu dee def na ko noonu fan la feeñ ci biir hôpital bi ñun bëgg nañ ñun ñu ngi koy laaj xaalis boobu fan la féetee ci hôpital. bi ñu jokkoog moom ci téléphone bi nag directeur hôpital bu Ourossogui moom gisul benn njëriñ di réagir xanaa lu ñu xamal kay moo di ñooñu di syndicaliste yi bokk sax du ñu nangu wuyu convocation ndaje muy woote ngir ñu waxtaanee forme revendicative bi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Assane Ndiaye docteur Assane Ndiaye mooy directeur euh, hôpital euh, régional bu euh, maatam àdduna ci crise boobule sàkku ci ñëpp rawatina syndicaliste yi ak waa direction bañ ne bu ñu sacrifié mukk askan wi rawatina ñi wopp ñu teewlu ay kàddoom. waaw wax dëgg li am si situation région de Matam du lu neex waaye loolu yëpp ñaari facteur moo ko indi dox nañ si nag ay jéego waxtaanee ak directeur waxtaanee ak secrétaire général bi lépp pour que ñu trouver solution si biir lool nag facture CMU yi génn nañ ko ba fay ko li si des kañ mooy li am biir wërësoo bi entre directeur bi ak SSI bi nga xam ne dañ ko mujj dindi si poste ba te mu nekkaale secrétaire général syndicat SUTSAS génn foofu tam wax personnel nekk ñoom ñëpp nañ def rétention d' information ñaan nag ñoom ñëpp ku nekk def preuve de sagesse. xool nekk tey xeex ñaar nit. warul dem bu mën a perturber tout un système de santé par rapport à des ku nekk yaa gis sa bopp ku nekk di dóor sa dënn loolu taxul mbir mi mën a dox ay mag lañu ay responsable ay sage lañu bu loolu daal lépp lu ñuy def peut-être bëgguma sax tey bëgguma patient yi waa Ourossogui wala waa Matam di ko vivre dans leur chair parce que tout simplement ku nekk gis na boppam di duur ci dëndam ba nar a tout un système de. pour man bi gën a jege askan wi. RFM rajo seen soxla. ñu wax ci lakk gi amoon démb ci salle de ventes bu euh, marché Sandaga euh, mairie bu Dakar Plateau ak gouvernement bi nag jóg nañu sol seen dàll dem seeti ñi nga xamante ne ñoo di victime ya yóbbaale leen koppar nguur gi génne la lu toll ci soixante quinze millions mairie Dakar Plateau vingt cinq millions muy cent millions. Euh, maanaam daal téeméeri million yoo nga xamante ni daal dañ koy jox euh, ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo yàqule ci euh, lakk googule ministre du développement communautaire de l'équité sociale ak territoriale di Samba Ndiobène Ka ak maire wu Alioune Ndoye ñoo fa nekkoon ni ki démb ci loolu sax Alioune Ndoye maire Dakar Plateau nee na ci defar gi ñuy defaraat marché Sandaga te ak léegi liggéey mi liggéey bi mel ni lu taxaw nee na dàqul benn yoon ba dakkal contrat bi dox diggante mairie beeg entreprise bi ndax dafa mel ni daal entreprise bi lu mu àttanul Alioune Ndoye kàddu yu mu dénk Amadou Sabar Ba Alioune Ndoye euh, daañu ko euh, déglu ci euh, kanam mooy meeru Dakar Plateau àdduna ci defar gi ñuy defar marché Sandaga te liggéey bi taga tembe marché Sandaga dem na ba ñu def li ñu naan appel d'offre xam nga appel d'offre day yàgg ba ñu dépouiller appel d'offre boobu ba jox ko entreprise ba entreprise war a tàmbali liggéeyam du ma la laax nag entreprise bu actuellement nee naa ko damay dagg marché boobu xam nga lu tax lu tax ay weer ngi nii ma jox ko marché bi muy raay raaylu te nag marché Sandaga dafa am ñu koy xaar 2013 lañu leen fa jëlee 2013 ak léegi yàgg na am na ci ñoo xam ne te génn nañu àdduna kon liggéey bu mel noonu dafa war a tar plateau yor na xaalisam bu tegee boo xam ne mën nañ ko dugal feneen ñu jël ko ne dañ ko koy dugal fi pour defar lépp teg nañ ko ci table bi jox ko ay nit ñu gagné marché bi. ci seen biir am ay problème ba marché ba avancé wul loolu moo tee loolu te loolu incha allah ci semaine bi ci nii wala ci naa dana avancé wala ma dakkal ko loolu pour Sandaga la. Alioune Ndoye maire Dakar Plateau moo nekkoon gan ak matin de RFM soir ngeen baal ma démb ci ngoon ñu wax ci mbirum marché yi ndaxte li ñu bëgg mooy euh, jamono ji mooy identifier leen def ca ñoom liggéey ba ca war euh, ba ñu gën a méngoog jamono maanaam programme euh, modernisation bu ñu jagleel marché yi te njiitu njiitu réew mi euh, Macky Sall euh, nas ko euh, loolee ngir dimbali ask commerçant yi rawatina bu jëy amee lu mel ni ay incendie ak yeneen ko demee yaay Fatou Diagne mooy coordonnatrice wu boobule programme ñu teewlu ko kàddu yu mu dénk Nafisatou Ndiaye. pour que suñu réew avancé il faut suñu marché yi ñu nekk ci norme normale yi maanaam président nag dafa jógoon pour ne état bi dina financer modernisation des marchés yi mais dem nañ ba ci biir gis ne marché yi dañoo bari ak taayu wax dëgg yàlla nërmeel économie état yi ñu ne nag léegi il faut ñu ubbeeku def partenariat public privé ay yeneen mode de financement innovant pour gën a suñu ay marché établissement marchand marché par marché problème par problème ak solution par solution parce que commerçant yi dañoo taxaw bëgg ñu ànd ci ñun ñëpp ñoom tam taxaw nañ pour ànd ci loolu donc buñ ko jëlee de façon sectorielle marché par marché incha allah ñu dañ mën a defandoo lu naa wax ne tàmbali nañ parce na ay marché yoo xam ne léegi ñu réceptionné ko ndax programme bi ne mooy ubbi portefeuille mu gën a yomb ay weer la amagum te yaakaar naa résultat yi day gën a day gën a bare incha allah Fatou Diagne mu ngi yëkkati yile kàddu ci forum gu njëkk gi ñu doon amal jagleel ko wàllum commerce ak industrie fii ci Sénégal association gi ëmb commerçant yeeg industriel yi ci Sénégal ñoo ko doon euh, amal la boo moytuwul njëgu ciment bi ne dañ yokku euh, ndaxte ñi nga xamante ni ñoo di industriel yi nee nañu ñu ngi subir bu baax conséquences yi tukkee ci guerre ga ca Ukraine Euh, ñoom nag nee nañu jamono ji lu métti la ñuy dund directeur financier bu usine bi di Dangote di Ousmane mbay ak économiste euh, bu yëngu ci wàllum énergie di Ibou Sougou euh, Fara ñoom nee nañu nag njëgum courant bi ak ciment yi bu yokko dana métti lool ci askan wi Cheikh Anta Diop guerre ba am ca Ukraine njeexital li daanaka buñ sàgganul de njëg yu bëri dina yokk dina yàq nag croissance économie yu bëri ci réew yi loolee di xalaatu Ibn Sugufara nekk économiste xam-xamam màcc ci wàllu énergie. compagnie yu bari daw Russie actuellement lool nag dina indi problème bu mag ci prix yi prix yi yokk bu baax a baax a baax ndax pétrole day dugg fa nekk pétrole mooy indi ci électricité pétrole day dem ci oto yi day dem ci industrialisation fépp lay dem ba nga xamante ne bi moom bu yokkoo ak lépp day yokk pratiquement baax a li ñu gis ci kanam nii ah mën na métti dal eh bien bu amee lool nag gouvernement bi il faut mu génnee subvention yu gën a métti et loolu day poussé ci déficit budgétaire te bu ñu waxee déficit budgétaire ñuy wax ci endettement bu gën a yokku dëkk yu bëri seen njëg yaa ngi yokk yokku askan wi tàmbalee sonn ñu gis ne fii ci réewum Sénégal daanaka matière yu bëri de bitim réew di lañ koy jëlee ba tax na kii di Ousmane Mbaye nekk directeur administratif financier bu usine cimenterie bu Pout nee na mën naa dem ba indi rëq-rëq ci wàllu njëgu ciment bi. comme par exemple ñun dañuy utiliser charbon comme source d'énergie et charbon aussi dañ ko soxla pour defar ciment donc prix wu charbon entre fin deux mille vingt ak mille vingt et un presque yokk na de cent yi dafa exploser ñu ajouté si coût fret bi que amoon na charbon boo xam benn partie Russie la doon jógee te ñëpp xam nañ ne Russie instant yi dañu am blocus du coup li ngay mën a def mooy augmenter prix wu bi. di lu ñu taataane ci ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllu économie ak énergie. ci ab tukkub nemmeek bu ñu doon amal ci usine bi defar ciment fii ci Pout RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh maam Abi seen mooy ki ñu fal bees. mu wuutu euh, Pape Amadou Sarr ci boppu euh, DER moom am maam Abi nag euh, moo nekkoon ba fii directrice générale bu fonds de financement de la formation professionnelle mu di 3 pt décret bi démb la ko njiiti réew mi jël. mouvement pour la défense de la démocratie di m di amal cérémonie d'hommage delloo njukkal ñi nga xamante ni. ñoom la seen bakkan rot ci manifestation yi fi amoon ci weeru mars atum 2021 M2D dana amal ay ñaan ci euh, réew mi yëpp euh, ñi fàttu woon nag ñu ngi tolloon ci fukk ak ñetti doomu aadama danañu amal ay ñaan ci réew mi yëpp bu noppi euh, njiital M2D daanu amal ab ndajeek taskatu xibaar yi poste premier ministre bi ñuy euh, bëgg dellusi ñu ne daañ ko dellusi si ak léegi nag ñu nekk di xaar euh, forum civil ne dafa joy nag euh, dafa jot nag Macky Sall gindi ci askan wi ci gàttal daal na def li mu wax ndax dafa gis ne moom Birahim Seck jot na ngir Macky Sall respecté li nga xamante ni moo di cohérence bi jëm ci charte réew mi Birahim Seck ñu teewlu ko je pense que bi ñu modifié constitution ba léegi euh, sénégalais yi ñu ngi toog di xaar te li ñuy xaar euh, daanaka seen droit la parce que président de la République ci boppam moom moo modifié constitution bi ay partisans jàppale ko si daal di ne parce que dafa yoroon ay dafa yor ay pouvoir au niveau de l'Union africaine moo tax dafa soxla li ñuy wax premier ministre waaye si loolu dandoo dañuy wax ne nit ki bu fekkee président de la République na da war respecter les institutions respecter les institutions la commencé ci respecter l'ordre constitutionnel li nga xam ne moom la constitution bi wax nga tënku ci bu fekkee ne constitution bi dafa ne war a am premier ministre amul lenn lu la war a te lu la war a tee te tere dara terewu terewu la ko da nga war a nommer un premier ministre pour que sénégalais xam ne kat yow li nga tënk ci constitution bi jëfee nga ko waaye ñëw continuer rek président de la République ñu naan ay prérogative la prérogative la bu ko neexee saay bu ko neexee lay euh, nommé premier ministre bi ñu xamee ne saay bu ko neexee la nommé premier ministre war woon modifier constitution bi dafa waroon constitution bi noonu donc Sénégal fi mu toll nii dafa war a am euh, euh, dem ci cohérence constitutionnelle dañoo war a respecter la constitution maanaam nommer un premier ministre pour que dëkk bi mën a fonctionner yàgg na ba yàgg ba jéggi dayoo mën a comprendre ci ñaari semaine ñetti semaine mais jëm ci ay mois ci dëkk boo xam ne institution yi constitution bi kenn terewu la nga modifié ko nga modifié ko ba pare euh, li li taxoon nga ne euh, euh, dama damay modifié constitution bi maanaam union africaine bi ba léegi mi ngi fi mais yaa ngi war dëkk bi yaa ngi war dëkk bi di dem di dem penk di dem sow kon day mel ne kon li nga doon wax ne moo tax nga modifié ko moo modifié constitution bi ba dugal premier loolu loolu amul donc li ñuy laaj fi nekk ni mooy président de la République respecter l'ordre constitutionnel la cohérence institutionnelle nommer un premier RFM Sport ñu dalal euh, Cheikh Tidiane Diagne Cheikh euh, nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélemy Ngom. acca aywa. dañu koy daal di doo rek wàllu basketball ak lii di basketball Africa League conférence Sahara yi yëf yi nag danañ ko daal di kon bokk yeggali ni nikki tey gannaaw ba ñu baree nikki démb. tey jii nag euh, jongante gu mat a bàyyi xel moo di bu Dakar Université Club Dakar Université Club nag seen capitaine moo di euh, Thierno Birahim Niang bokk na si seen joueur yi Thierno Birahim Niang moom nag yëkkati na ay kàddu euh, jëmale ko ci googule jongante seen digg ak ñi nga xam ne di waa Rwanda Energy Group di équipe Rwanda ñoom nag équipe boobule dal nañoo am ñaari victoire bu teg di nga xamante ni ñaari match mu jot am yëpp. da cay daal di euh, daanu waaye waa DIC lu bëgg nag moo di fexe ba jooyanti mbir yi ñu déglu Thierno Birahim Niang ci DIC ci micro wu Soda Thiam. par rapport au tournoi xam nga euh, on l'a bien préparé bi ñu ñëw fii mentalement physiquement xam nga on a tout fait pour pour parer pour ñëw mais bi ñu ñëwee ba si tournoi bi on a vu que xam nga ñaari mat yi ñu jot a am on a eu des défaites devant notre public te loolu lañ bëggoon mu nekk suñu soutien parce que ku nekk xam na ni Sénégal et surtout les supporters du Duc niñ mel ci ci seen équipe donc on voulait utiliser ça xam nga ñoom ñëw nañ ni ñu war a ñëwee ils ont fait ce que les ñoom li ñu waroon def lépp def nañ ko so ñun nga xam ne nii les acteurs on a essayé mais deux matchs yi ñu joué guñ fi ñu toll nii boo seetloo benn problème la ñu am mooy suñu troisième carton parce que à chaque fois ñun ñooy mëne bu ñuy dugg ci locker room bi euh, à la mi-temps mais buñ ñëwaatee même pas cinq minutes six minutes da ngay gis score bi day day député noonu lay mujjee ba feebu jeex sow jàngat bi ñu ci am rek mooy que nous doit régler ça loolu mooy suñu problème ak suñu suñu réaction défensive parce que attaque moom c'est quelque boo xam ne tey mën na dox suba mën na bañ a dox mais défense c'est quelque chose boo xam ne chaque jour danga ci war a focaliser parce question de volonté te nekk si terrain moom sa volonté dafa war a nekk moom mooy affaire bi nga xam ne warul di manquer chaque jour danga ko war a indaale xam nañ loolu mooy suñu problème donc ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey bu baax on est plus confiant match dig bi nag danañu ko daal di amal ci bu 21h jotee ci match bu njëkk bi nag tey ji ci ngoon ba tey ca Dakar Arena 17h30 diggante ay Salé bu Maroc lay daal di doon ak Union Sportive Monastir bu Tunisie jamono gi féete ci bopp classement bi bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee wàllu football ak Ligue 1 bi 13 journée bi danañ ko daal di door niki ëllëg di samedi jogante bu ci gën a fës moo di eh, diggante Tëngéej FC ak AS Pikine ëllëg lañu koy daal di amal ci stade Ngalandou Diouf bu Tëngéej. Euh, loolu nag euh, ki nga xamante ne moo di seen entraîneur euh, di si Cissé am na ay kàddu yu mu ci jot a yëkkati ci conférence de presse avant match bi ñu déglu ko ci micro Lansana Coly voilà man nag nekk naa koo xamante ni aussi dama xaw a exigeant donc te kon nag bu dekkee ne xale yi déggal nañ ma donc xam naa ne ñoom tamit maa ngi leen di teg ay métti di leen teg pression bu métti pour ñu liggéey donc yaakaar naa ne loolu moom mooy xaw a feeñ nii tuuti rek te daa daantaka nag liggéey bi sax pareeguñ ko ndax affaire bi du jeex c'est tout yaa ngi liggéey yaa jàpp naa ne daal euh, xale yi am na ci part de responsabilité ñoom ñi nga xamante ne nangul nañu euh, sama vision sama gis-gis donc euh, mu nekk liggéey ak pression bu méttee métti boo xam ne dañ koy dund suba ngoon guddeeg bëccëg et que ñoom ñu nangu ko aussi pression publique bi tamit nekk loo xamante ni ci ñoom metti la et ñoom ñu dégg ko tamit ma waajaloon leen ci te gis naa ne ñoom ñi koy kii jàpp naa ne daal ci as aspect yooyu moo tax ba nga xamante ni équipe bi tey jii commencé monter en puissance. kooku moo di Massamba Cissé di entraîneur bu AS Pikine ëllëg seen digg ak ñi di waa Tëngéej FC danañ ko dal di amal incha allah ci stade Ngalandou Diouf tombeek fukkeel ak ñetteelu bëccëg di euh, dernière journée ci phase aller gile euh, championnat ni ëllëg itam diggante Mbour Petite Côte ak ñi di waa Génération Foot dana am itam geneen jongante diggante Dakar Sacré-Cœur ak Linguère bu Saint-Louis Union Sportive bu Gorée moom dana taseek ñi di waa Jàmbaar bu Saly diggam ak jaraaf bu Dakar lay daal di doon euh, ca ëllëg euh, sa di dimanche Ñambur bu Louga dana tase ak ñii di waa AS Douanes GFC euh, diggante mag ñii di waa Casa Sport bu Ziguinchor lay daal di doon GFC di Guédiawaye ñoom ñoo fete jamono gi sax ci li nga xam te ne moo de première place bu classement bu Ligue bi daal di am 22 points Pikine rek ci deuxième place bi daal di am 20 points ñoom sax quatorzième journée bi di première di première journée si phase retour yi ñaari équipe yooyu la la ñuy dal tase ca stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio uh, ñu daal di waxtaanee ba tey wàllu football uh, waaye bi la ci biti réew ak championnat bu Angleterre ñu ngi seen trentième journée match avancé ni ki démb Chelsea moom dafa daal di am ndam ci digganteem ak Norwich City 3 à 1 Edouard Mendy mu nga woon ca kang euh, am itam yeneen match nga xam ne dañ ko doon amal waaye dañ doon dabe di ay match retard vingtième journée United moom dafa daal di ñàkk ci digganteem ak Newcastle 2 buts à dix-neuvième journée ba tey championnat bu Angleterre ni démb Wolverhampton dafa gën a suuxal euh, ñi nga xam ne ñoo di waa Watford bi Ismaila Sarr jot a bokk ci gi jongante ndax ñu daal di ko jeexaleeg wàllu Ligue Europa huitième de finale aller niki démb lañ ko doon amal FC Séville bu Espagne dafa daal daan ñi di waa West Ham United benn bal ci dara FC Barcelone moom ca dëkkam démb digganteem ak doomu Turquie yi di waa Galatasaray soxo bi baxtu Braga di équipe bu Portugal moom dafa daal di dalal AS Monaco daal di ko daan ñaari bal ci dara Atalanta Bergam moom dafa daal di am ndam ca dëkkam digganteem ak Bayer Leverkusen niki démb itam nekk ca Écosse dañoo daal di am ndam seen digg ak ñi di waa jërëjëf euh, Cheikh Tidiane Diagne laata ñuy euh, dalal Ana Rocha ci xibaaru aada yi xibaar bi nga xamante ni jot naa ko sànq mu accident bu am ca daaru euh, Nanji gi nekk ci commune bu Njoñik département bu Mbirkilaan benn woto boo xamante ni nañu dadoon doon séddale mburu Euh, ci dëkku àll yi oto baa ngi bàyyee ko woon Kaffrine doon yóbbu mburu ci dëkku àll yi oto boobu dafa mujj këpp am na kenn koo xamante ni ñàkk na ci bakkanam chauffeur bi moom euh, jëlee ne ci ay gaañu gaañu yu métti mu di xibaar bu ñu nangoo euh, ci suñu ndaw la ca Kaffrine di Omar Ndiaye. ñaar fukki simili ak ñaar moo bootu ci juróom ñetti waxtu ñu dalal Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi collectif bi ëmb artiste plasticienne yu jigéen yi fii ci Sénégal ñooy exposé jamono yi ca galerie nationale lu ëpp juróom fukk ci ay euh, œuvre mu di exposition boo xam ne ñu ngi koy amal jamono yi ñuy waajal euh, foire de collectionneurs bi war a am ci weeru septembre gi ñu dëgmal Fatoumata Kijera teewe na vernissage bi. ñoo ngi ci weeru mars jigéen ñi yëngu ci wàllum plastik fii ci Sénégal ñoo aye lu ëpp juróom fukk ci seeni œuvre la exposé fii ci galerie d'art national aadama Boy mooy seen njiit. septembre du mois 2022 tax ñu tey ñu organiser exposition bi nga xam ne dafa regrouper euh, li ñuy wax art visuel yëpp. yàlla moo ngi yore benn pipe di tour ñooñ ko rek comme ren moo ngi toog ci chaise am ku dugg si rek di diñ ko xool sculpture bi ki ko defar mooy Ndeye Siga Ndiour journaliste la di artiste plasticien. te yàlla mi ki ko jur mooy njëmbat euh, ki Yamar Fatim Khouriaye moom moo bokkoon si jigéen ñoo ñu nga xam ni 7 euh, mars 1820 un mardi ñoom ñoo bokkoon taal seen bopp ndax bañ ñu def leen jaam bañ nooteel ndax dama bëgg a revisiter histoire du Sénégal ndax ñu andi nii mu solu moo daan doxal royaume bi. jigéen ñi sax parfois dañuy jànkoonteel ak ay jafe-jafe ci wàllu matériel. soxla financement yi lan lañ koy doy ñun lépp ci exposition bi ngir yokk doole création yi nga xamante ni nii ñoo ngi koy def. talaata ji weesu artiste sénégalais bi di Djeba daal dina siiwal ab single bu bees soo mënee waaw. indaale sil bu bees waaye itam mbëbët yu bees loolee ngir fësal albumam bu njëkk bu muy waajal. nekk na son boo xamante ne ça parle de une histoire d'amour boo xamante ne nit ki dafa nekk copinam donc copinam bi ki di ko woo mënu ko jot mais aussi tamit ci biir daa am benn histoire aussi bu muy raconté que woo naa la téléphone. ñëwul dama ñàkk jom xam sama mbëggee moo ma yóbbu moo tax ma lay woo. seen chanson qui rencontre benn dispute boo xamante ne ñaar ñu bëggante am nañ ko kii di woo morom bi keneen di ko jël comme nu ñuy dalee ñun ñëpp formation jeune à la recherche de la perfection à la recherche leneen ak leneen bu ma découvrir genre musical bii nii mu nekk gospel ma ci def son j'ai travaillé avec mes musiciens ñu liggéey ci après on a fait le son c'est pas un son boo xamante ne tey dama ci xaar des millions de vues ou bien xaar leneen ak leneen mais dama ko def rek parce que jargon musical daf ma neex juste pour essayer diversifier sama musique essayer tamit am na beneen public boo xamante ne sax peut bu bokkut ak sama public dégluwaat Jeeba. waxtaan gi mu sekk ak Aminata Ba ni mu gën a yaatoo ni ki ëllëg samedi Jeeba mooy doon ganuk seen magasin bi ñu jeglal aada ci RFM xalam di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. seen savon yi di créole. ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. ñu dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf njëgu dund gu seer gi nit ñi di jooy enquête dina kay nee nañu pexe am na ca yëral xët mu njëkk bi état bi nangu naa suspendre taxe yi ñu gàlloon ci importation yi nangu naa jëlit lu toll ci juróom-benn fukki milliards ak ñaar dugal ko ci wàllu subvention lu ñeer suukar si ak tension gi ci am enquête dina kay nee nañu directeur fii ak weeru koor yi di teru dootuñu amati benn problème d'approvisionnement ci réew mi réew mi quotidien nañu wàññi gi état santaane ci njëg yi ci marché bi jaaykat bu ko ci bañ a jëfee xamal ne yaa ngi gasal sa bopp bàmmeel nekkoon ci jàpp danañ la alamaan te alamaan moo gën a sedd ci daan ndax yoonu kaso mën na la caa fekk ñu fekk ci xët mu njëkku la Tribune ay mbir yeneen yu seenu njëg aw yoonu yokk ci réew mi mu di njëgu mburu mi di njëgu courant bi ba ci njëgu carburant bi guerre bu rëy bi réewum Russie nekk moo ko nar a ko ba noppee teg ci moom it ak njëgam bu ñu moytul dana yokk mu ne defante gi Russie di defante ak Ukraine moo waral ba kilifa yu cimenterie Dangote yi ñoom it dina sër yokk njëgu ciment bi mbay mi ak xaalis bu bari bi toll ci juróom yi président Macky ne état bi dana ko dugal ci campagne agricole bi Soleil national xëy na di ñu xamal li ko sabab ba dañuy wax ne ci ñaari yaat xaalis bi ñu dugal ci campagne agricole bi jóge na ci ñeen dem ba ci juróom li ëpp ci xaalis boobee nag mu di ñeen fukki milliards ak état bi fas na yéene yëkkati juróom-ñaar fukki million ak juróom ngir dàmpe leen ko mu des nag jeneen jur jàng ju ma war a lijjanti moom état bu Sénégal diggam ak agent de santé yi ci réew mi ndax journal Le Quotidien bind na ci xëtamu njëkk ne lu soxal xoolaat gi ñuy xoolaat anam yi ñuy fayee fonctionnaire yi ci réew mi ginnaaw jàngalekat yi agent de santé yi ñoom it nee nañu beneenub traitement la ñu bëgg bu bokkul ak bi ñuy dund woppi coronavirus gi ñuy dund ci réew mi Vox Populi nee nañu def na ci réew mi ñaari yat yu mat sëkk journal bi jël kàddu gi jox ko njiital Seneps di baaragay muy xamle ne ak bayli ko am na ci xeex bi te loolee warul ndax xeex bi covid 19 bi mi ngi fi ba léegi mu ne coronavirus bi waree su koo ndax amul lu mu ñu wanu rawatina ci suñu économie bi élection locale yi ñu weesu waa ji di Dame di responsable APR mi ngi leeral ci direct ci news li yàqal waa Benno Bokk Yaakaar ci Géejawaay ba tax ñu daanu fa ñu daanu ji ci journal La mi xëy di ñu xamal ne leader yu coalition Macky 2012 weddi nañu li ñu leen di waxal Fatoumata Gueye Diouf coordonnatrice bu coalition Macky na loolee du dëgg waxuñu ko tey waxuñu ko ëllëg coalition Macky 2012 ñi ngi ci Benno Bokk Yaakaar te jéego bu ñuy séqi ñoo waa Benno Bokk Yaakaar koy ànd ñu ànd ci l'observateur xooli fa njuuj njaaj gu rëy gi am ca banque bii di CBAO ubbil yéenekaay bi chef département monétique ba di Arona Soumaré yéenekaay bi nee nañu moo doon pomper compte client yi ca banque ba di jël seenub xaalis di ko def ci ay carte boppam